daal ñëpp daal mooy yow gis la ci terrain bi nga jàll tribune yéene kaay daal di ñëw ndax dañ ko mën a ñaan ci kaw tribune yàgg nañ ci nag waaw Mame Mbaye Mame Mbaye Sonko ah sama turandoo bi Mame Mbaye ma non Mame Mbaye Niang déedéet Sonko tey ñoo yëg ci kaw tribune bi waaye nag tribune yéene kaay wax na de nee na la Mame Mbaye bëggoon am na ko de parce que bu leen fàtte ne ñaari citoyen sénégalais ñoo jote waaye ñaari waay politique ñoo jote te lu leen xeex bi may dañu koy jël maam Mbaye Niang nee nañu tribune yéene kaay ca la mu ca wax nee na la mu bëggoon am na maanaam éliminé na Ousmane Sonko ci présidentielle bi ala accu la woote woon dem ba jeex la cour suprême casse la contrainte par corps loolee nag ndam la sa ñoom waaye condamnation ba ñu tegoon ci ndodd bi ngir du mën a bokk ci élection yi loolee mujj nañu ko confirmer tout le reste du jugement euh, rendu par la cour d'appel a été maintenu ses adversaires ont réussi à l'écarter déplore maître Khoureychi Ba nee na lii moom euh, wax na ko nee na naa nangu rek moom maître Khoureychi Ba nee naa nangu rek na la gaa bëggoon am nañu ko maanaam écarté kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom noonu la ko jàngatee dinañ si ñëwaat tribune yéenekaay ñëw ci Anta Babacar Ngom Mamadou Fofana contrôle parrainage yi conseil constitutionnel yéenekaay bi laaj samp aw laaj nee na de kii se moque-t-on ani la ñu yàpp ndax nag waxuma nag yéenekaay bay wax moo posé question bi Anta Babacar Ngom passe là où 600 anciens PM échouent PMI yooyu la non dama ne. salaay politique de sommet bi lañu war a ba Mambay. xam nga lan mooy politique de sommet. proximité yow parce que yow yaay diw. Hmm. premier ministre laa fi woon wala ministre économie ak finance. rek nga ne yow et puis ñii ñii dañuy yab sax nit ñi quoi. mais loolu mooy dëgg. gën a jigéen gën a yaa ngi ci terrain bi tam. askan wi la ñu gis eh, déglu ma expliqué la fii laa lay wax nii eh, déglu ma fii kii Mambay. Ah. Mambay ñun juróom benn la ñu woon déglu ma expliqué la yàlla daa dogaloon na bi nekkee juróom-benn laajal fa mu foofu mhm. ñun bokkoon nañ ci ñi gënoon néewi moyen. Mhm. ñoo ca nekkoon bële. pour la première fois. ñu naan ñu mënuñ mënuñ sax nekk sax cons ils n'ont jamais été même mais dañ doon dox di wër juróom-ñaari at. ñeneen ñi seen kër rek jàpp nañ bon ñoom comme que ils sont. connus voilà mais lan mooy. yaakaaruñu woon dañ leen di yàkkal. liñ nekk PM sax moo war a tax sax nag bu leen kenn wuteel parrainage. bu mu yomb parce ñoom jaar nañ jaaraat jaar jaaraat lan lañ fi def faut se mouiller. yow moo tax yéen kaay bi sampaw laaj nee nañ ana ku nu yet ñu sonal bu fekkente Babacar moo mën a jàll ko ñu si des andi lu tax jàlluñu. Ah, laaj la rek. liggéey naan lacrymogène. Ah, doxul de moom mi ngi ah, noonu moom dem na ci terrain bi. dem na ci terrain bi. moom dem na uti ji ay ay ay ay signature am. dara sax hmm? ñëw ci affaire Prodac. et conséquences sur la présidentielle Sonko hors course yéen kaay bee ko wax. la chambre euh, pénale de la cour suprême a confirmé donc la condamnation d'Ousmane Sonko maître Khoureyssi Ba mooy li ma doon wax sànq nee na je dois me rendre à l'évidence naa nangu rek li yàlla dogal que les adversaires de Sonko ont réussi à l'éliminer de la présidentielle li yàlla dogal wala li adversaires yi Sonko yi daal euh, namoon ca moom mujj naa am kon nag dañu ko bëggoon éliminer éliminé nañ ko l'enquête yéen a kaay ñëw li noonu yi bëggoon dal na ko daal na ko la waykat ba waxoon Pastef parrain Habib Sy et met en Abdoulaye Bibi si moom ci député yi la jaar moom jàll na Diomaye nag moom it ak jooyanti la ñuy xaar ca moom yéen kay bay wax du samay kàddu wàll fu ko di ñëw ci son dossier validé Anta Babacar Ngom sauve l'honneur des femmes parce que jigéen ñi nag daanaka as néew la ñu mhm. pour le moment moom moo jàllagum aywa mi mi ngi jàmbat mi ngi jàmbat Rose Wardini écarté Aïda Mbodj moom tey la war a jàng tey ñooy ci pandaw daal leen man daal li ma jaaxal mooy leen man par contre benn leen rek moo ma jaaxal ci dossier Anta Babacar mhm. sa position ak doublon yu ñuy wax ne amu ko amul benn parce que gis nga à partir de quarante waxuma cinquante de logique pour logique à partir de quarante moom son mhm. doublon yi moom day laal vingt deux mille jëm trente mille aywa li ngay gën di dem doublon yi di gën a bari li ngay gën di arrière muy gën di bari mais kantaan nag ñëw ba yegg ci ay numéro soixante quelque nga ñëw rek moom ne ne ne sararaax dem kooku it war nañ koo xoolaat lu jar a jàmb lu a daal daa laaj enquête ñu fi nekkoon ay ilimaanu jëwriñ bàyyil PM yi ma mbay te koy dem ci yéen contrôle des parrainages les premiers ministres redouble mais que PM dafa tax nga am ay nit. ñooñu dañoo redoubler. aywa yow yow PM yi ni ñu leen tànnee ñëpp xam nañ ko. bun ni ñu ko tànnee ñëpp xam nañ ko. Daamal Kajoor e, nit ñi daw. bun moom parce que parce que ne sont mm-hmm. ay doublon bun n'est pas invalidé. mais les gens ñiy parrainé Boun ñan la. ah c'est pas aussi des moindres. c'est-à-dire il faut pas aussi déguiser. soo ku nekk am nga droit tànn ku la neex ne ko. voilà am na ñu leen parrainé. mais nag laaj bi mooy bi pas invalidés. Mm. ils ils sont ils admissibles. ils doivent ngi nii. il y a mais li ngeen laaj a Idi rek bokk na ci PMI raw de. ci huit mille huit mille et quelque. Idi Idi Idi. mu war moo bokk ci ñi tane. huit mille et quelque yi a def ah yow mais Idi. deux mille dix neuf c' la même chose. xam nga ni eh, wuy ma ñi war a montali. <laughs> ñi war a montali. Euh, euh, euh, kii pure moo jël P. ñun deux cent jël deuxième. Malick Gakou jël troisième. acca bonjour les dégâts. huit mille treize mille. fu ñu koy jëlee. c'est faisable hein. Diomaye Faye tamit il dit 2019 il il il était. il ah, moom la même chose la demee woon. en 2019 ci 2019 nag. borom Bakka waaw Makka Bakka. waaw ba mu ko fi wax. waaw Diomaye Faye mu ngoog en sursis Mimi Massa Diambar ga en sursis Abdoul Mbaye bloqué par les doublons ña ngi nii ñii de doublon moo leen sonal fu mu nekk nii dañuy la sax diggante ay ah, doublon. Ah, oui pourquoi amul Anta Babacar Ngom gañ son pari. sa benn. kan ci. ah dëgg la am doublon lañ war a xool. waaw waxuma ne wutul wutiwul parrainage. amul doublon non dañuy non dañuy rek. waaye déglu position yi fi ñu nekk nii ku diñ tol nii nii nii nii. Ah. soo xasee ba yegg trente cinquième voire quarante quarantième position. non bul sonn ca ginnaaw moom ay doublon trente mille vingt mille nangam sangam laal kaw. validé na dix régions yi de. non am na ay boo validé dix régions est que yeneen quatre régions yi. Eh. waaw boo moo leen intéressé. moo leen intéressé moom intéressé wu. bu amul doublon moom de waxuma la moom moom doublon xaaru ko fa. moom xaarul contrôle waaw moom sa contrôle la la <laughs> Thierno nekk te bëgg nekk candidat tax na. mu dem àbbi ay député fu kenn xamul. ay député yooyu nag. député yooyu. ah lu ma ba. non député yi laa wax. waaw parrainage député. waaw nañ leen nañ leen enquête. c' est est-ce que est-ce que nañ leen enquête. yu Thierno yi yu Thierno existé wul. dama ne nañ leen enquête laa la wax ci ñeneen ñi. ah ñeneen ñi parrainage député xaw man xaw man ba ma fi demee Gambie vingt cinq décembre tuddoon nañ ne man te ña parrainé diw ca laa bokk. Hmm. ma ñëw toog fii ci télé bi ni leen man parrainé wu ma kenn. na leer parrainé wu ma kenn de. waa léegi nañ nañ député yi ñi fare ne député nañ leen dem am na koo xam ne moom war nañoo yëri député moom. foofu nag rek laa yem. waaw xaayaan. ku dégg séeréer. waaw. Ah, kooku nag na wax. 53. mu ngi nii Thierno Thierno Cissé. 53 ans la am. candidat indépendant. andi ay liste ba ci député Benno Bokk Yaakaar. xam nga ñoom xam nga ñoom pare na wuñ député élu lañ def. am na du ma may ma waa waaw déglu ma rek ma mbay. waaw yenn député Benno yi. ak ñenn ñu ñu wax ne dañoo pare ne fii député. bu hmm. leen moo tari. waaw loolu itam laaj la. day góob a de pure kon député si biir nañu xoolaat. pure defuñu. Hmm. PDS dese nañu. day góob a de. ana ñenn ñi jàll. te bokkuñ PDS. ku leen mottali. Hmm. te bokkuñ pure ku leen mottali. député yi. te man mii mottaliwuma leen. quatre wu bennoo boo ko yaakaar ana ñal lañ mottali. Ah. Macky dafa am ay candidat eh li mu wax na dëgg la. dëgg la ay leen nañ la fa xew. parrainage citoyen bi aussi citoyen bi tam. sa mboq la am assemblée nationale de. citoyen bi aussi citoyen bi aussi. <laughs> ñii dajale woon ba am 3 millions d'appareils. ñan lañ moo tali. waaw. li mu dëgg la de. ñan lañ yekkal. ñan lañ yekkal. est-ce que amoon nañ ko. yekkalu député dafa am yekkalu citoyen am. élu daal moo fi amoon parce que kenn dong moo ko def te moom rek moo amoon 120 élus. ñu tete yée ñun gis nekk kon ay mbir yi daal nekk am na ay les waxul ci biir léegi nag ni ñu defee tirage bi juutal kees geeg soob wane ne transparence mm. loolu logique bi moo waroon continuer ba fin bu boobaa loxo dar gémmeñ waaw ñu xam ne député bii waaw kay waay kii la pare ne waaw kay mm. te moom te mi ngi ci parti bee waaw kay ah. loolu lañu wax la demee am na li muy wax dafa leer dafa junj rek de li muy wax nii lox am na li muy wax nii bëri doy wàcc wala bañ woo ñu dig fu fas dul dem xel la ñu wooyee Thierno Cissé a wooyee député bi ñun ñëpp dañoo war a woo. ñu ne ko si yow koo pare na. ñun ñëpp dañu woo. ñu def enquête bu leer bu doon aux États-Unis wala en France dans les plus grandes démocraties. pare na pouvoir de. <laughs> parce que Abdoulaye Diagne ñu gisoon fi démb il est député il est parlementaire. waaw. moom mii dajaloon 3 millions de parrains yi. ah ana fu mu ko def. ah oui c'est vrai. ñu ngi ko yekkal. ouais. ah bis ko gardeel rek. non dama leen di laaj damay laajte kese. damay laajte kese dama ne. oui. dama ne. muy citoyen élu daal laa xam ne yëkkale amu fa kenn fi am cent vingt maire ak président de conseil départementaux. Mhm. mooy Benno Bokk Yaakaar d'ailleurs moom ñoom moom la ñu utilisé. Mhm. ils ont presque quatre-vingts députés. dëgg loolu dëgg. Ah, seen député yooyu anañu ils aussi plus de cinq cent mille parrains. ñoom dañ doon sóob ne 4 millions mais peut-être le pouvoir mën nañu am ba 500000 parrain citoyen seen jal googu ñu jaloon noonu laa lay wax nii jébbal ko Amadou Ba anañ. ca yàlla maam. continué ah. ñu doxal. ci Thierno Cissé mii ak la Ahmed wax dëgg la nañu ko gëstuwaat sa assemblée nationale. waaye moom ci na ay turu jàmbur 53 ans. mu am 13 faux députés. yi mu présenté. Ah, ay faux députés ñoo xam na nii duñu ay député. dugalum turut benn. dafa jël benn maam bay def ko député. dugalum député bu Yacine def ko député. député da ngay joxe Asma def ko député. waaw ñoom am. nga ne ay dem non non moom euh, ñoom moom nañ bañ a pare ne kenn waa pur. Hmm. ñoom moom ñoom moom ñoom moom. on leur fait confiance à 400 pour cent. waaw pour nekk ci ay dil dem di yëkkal keneen ak. Hmm. duñ ko def non non. aywa il est 57 Mame Mbaye ñu dikkaat si Thierno mi ba tey très faux député la présenté face aux enquêteurs se dit les informaticiens euh, de profession assume nee na lépp mën a maa ko def de maa ngi nii. man damaa mujj jaaxle. chèque gu 30 bi nag gars yi dem xool ndekk de France daal di xëddeen. Thierno Cissé wax <laughs> ma la placé en garde à vue sax waaye di jënti sa bopp. Thiado dañu ko téye ni pour le moment. faux et usage de faux. <laughs> xaw ma nag ndax dana voté xaw ma ndax eh, eh, est-ce que élection présidentielle yi du ko fekkee foofu. li ci kanam réew li bëgg kenn xamul. yàlla baax na réew mi foofu la toll. 24 heures yéen a kaay daal di ñëw ci cour suprême ba nga xam ne dàq na daanaka Ousmane Sonko ci présidentielle yi ay électeurs ay inconnus du fichier du conseil constitutionnel c' est quoi ça moo di doon wax sànq. yow am nga sa carte d' identité carte électeur ah. buñ waxee ba ne carte électeur c' est parce que da nga war a dem voté nga dem ñu ne gis ñu la si. xawma jour vote bi nag fooy dem yéen euh, euh, critique yéen kay daal di sayta sàll ma nga xam ne daanaka mu ngay tagg kii di Amadou Ba bu ko taggul fu ñu jëm le mandat yéen kaay parrainage du candidat Benno Bokk Yaakaar pourquoi Amadou Ba a choisi le parrainage euh, des élus le mandat def na point d'interrogation affaire Mame Mbaye Niang daanaka la cour suprême confirme la condamnation de Ousmane Sonko Aliou Sarr maa ngi ñu invalider sa candidature mu ngay jàmbat mu ngay contester moom it Aliou Euh, mu ngay contesté jéem ci andi ay euh, euh, explication deux minutes pour lire l'essentiel et demain c'est maintenant. maintenant c'est demain moom maintenant la wax sunu mbokk mi nag. bëgguma ko bëgguma ko wax lu kii mais nag. Oh. Pa Bokar sa waa ji <laughs> mi ngi Pa Bokar léegi mu mujj mujj naa rejoindre kii di Ahmadou Ba parrainage le jour du siècle kii nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany tey lay jàll gaañu nag ñu ngi ci seen i gët di xool mi ngi turé accuse le stage et menace moom ci boppam euh, comme jàllul wala jàllagul Aminata Touré mhm. jàllagul ah, jàllagul mu ne nañ koy jox parrain am Saint-Louis Saint-Louis <laughs> kan ci parrain bi dafa tëb Saint-Louis ndar <laughs> na ay parrainage yi Saint-Louis nañ ko ko delloo waaw ah, dafa metti na parce que dem ci terrain bi ut ay signature ba ñu nekk aawut ah, dafa metti nañ ko delloo ay signature am bés bi le jour la Cour suprême confirme la condamnation en appel gâteau pimenté pour Sonko l'opposant perd son éligibilité en tout cas ay avocat nee nañ nag du tax ñu bàyyi ndax dinañ continuer xeex bi mat na. mat na sënkam. mu ngoog ñoom nee nañ duñ tax ñu bàyyi dinañ continuer xeex bi Odia daal di dikkati kii nga xam ne mooy Cheikh Anta Bap parenage yi mat na mu ngay servir ginaar yi demee see maintenant mi ngi di ñëw ñu servir ko waa xaw ma tax ñu ñu boole Khalifa Sall it dem na di jël wàllam. Aminata Touré tànn moom ku ko servir fichier électoral faut pas se de moi nag Aminata Touré mooy wax. Barthélémy Dias moom yaa gàddu na euh, euh, caw sa xiir ba nee na Alpha Thiam suñu miir yi nga téye miir yëpp nga xam ne yow rappelé na te jàlloo bi yeboo na set. Alpha nag Mamadou Fofana la. aywa Badou. géej wala dëkk di. ah mbo mbokk Mamadou Fofana. ah. waaye la Alpha Thiam dëkk di. kon kon seen mbokk la yéen ñaar. aywa lu gën a fës si bopp xibaar yi. moom Alpha Thiam comme miiri Dakar la def ni moom boo demee Géejawaay ba am ñu ñëpp jeexul. pourtant nag pourtant laalul Géejawaay nag. ah léegi laalul Géejawaay ñëw laal yeneen. ah xam ne dañ ko baax xam. comme ñu newul am na. aywa Mame Mbaye sënkam jot na. bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi. Cour suprême euh, bu euh, cour d'appel bu euh, Dakar jëm ci mbiru Prodac daanaka décision bi dem démb ci xaaja guddi wala sax si guddi gi la ñu ko mujjee rek rendre décision boobee nag nga xam ne mujj nañu ko tegati ci ndodd Ousmane Sonko soo moytuwul élection présidentielle yi du mën a bokk contrôle parrainage yi conseil constitutionnel démb moo nekkoon ñettee ñeenteelu bëccëg bi ñetti candidat képp kon ñoo jot a jàll waa conseil départementaux yi Anta Babacar Ngom jàll na ci parrainage citoyen Khalifa Sall moom dafa opté parrainage député yi dañ ci dikkaat ci bi la jotaay xibaar dikkaat également ci candidat déclaré bi nga xam ne dañu ko teg loxo sa conseil constitutionnel division des investigations criminelles moo def lu ni mel Thierno Cissé lay wuyoo moom dafa déposé ab liste bu nga xam ne daanaka député sa nekk dara baaxu sa tàggat yaram équipe national bu football ñi ngi ci wàccaay li ngir coupe d'Afrique des nations bi war a am ca Côte d'Ivoire sunu gaynde démb rek jot nañu amal ak tàggatu sa stade maître Abdoulaye Wade bu euh, Diamniadio jàkkaarloo nañu taskatu xibaar yi Sadio bu Ka dana ko faram-fàcce